ginnaaw bi ñu leen nuyoo sant leen gërëm leen ci li nga xam ne moo nekk abonnement yi nga xam ne yéen a koy faral di def ah, ci li nga xam ne mooy seen seen préféré Aladji Malick TV abonnement yoo xam ne ñu ngi koy gis bu baax a baax ñu ngi ci big ñu ngi ci kontaan ak ceetaan mi nga xam ne daanaka yéen a ngi defum jiiraan di ko topp li nga xam ne mooy seen seen préféré Aladji Malick TV loolee ah, mbégte lañ ci am dañuy commencé li nga xam ne mooy information ak ah, ñi nga xam ne ñoo ànd ak Krépin Diatta nga xam ne Monaco la woon tey jii Euh, fële nga xam ne mooy seen terrain ba nga xam ne euh, moo nekk euh, fële ca Monaco di Louis nga xam ne fa lañ doon dalale ñi nga xam ne ñooy PSV Eindhoven nga xam ne loolee mi ngi nekk ci barasu Ligue des champions bi nga xam ni ñi ànd ak Krépin Diatta moom la bëgg a sukkimu pour jàll ca la nga xam ne mooy Ligue des champions boobee waaye loolee njaw desandi na aw xambin bu baax a baax ndax dañoo nërmeelu wala bokk dañoo def match nul benn ak benn nga xam ni gone PSV Eindhoven yi ñoo njëkk a dugal Euh, première bii bi ci première mi-temps bi nga xam ne daanaka yëkki nañ fa euh, benn bii boo xam ne bu am importance la waaye ñoomit it ñu daal di égaliser ci beneen bii boo xam ne ñu ànd a Krépin Diatta yëkki nañ ko Krépin jaata moomu sax moom daanaka comp na ci match bi quelques minutes yoo xam ne entraîneur bi may na ko mu football foofu daa di ah, xaw a wane maninam nga xam ne daanaka day door a door ci blessé la jóge moo tax coppati na ndànk li nga xam ne mooy ah, terrain bi image yaa ngeen gis comme moom doomu Sénégal bi nga xam ne ah, loolee ca Louis II la woon léegi nii ci match boo xam ne bu amoon solo goney Real Madrid yi nag ginnaaw ba nga xamee ne daanaka préparation nan seeni préparation yu sap-sap Euh, fi mu toll nii dañuy football li nga xam ne moo jëm ci quelque finales yi nga xam ne wala boo quelques avant finales yi nga xam ne war nañ koo football mais loole am na équipe boo xam ne daanaka euh, moom la ñu bellil Real nga xool ni daanaka 22 acteurs yëpp am nañ euh, ñaari poste nga xool Courtois mi jiitu Lyon mooy ki nga xam ni moo nekk ab remplaçant ji ki nga xam ne mooy Eder Militão ci axe bi Nacho mën na faa ne ñoom ñaar. double Iram la keneen wala xaw ak Rudiger kenn ku ci football bi sa morom mën na laa remplacer boo xoolee ah, côté ndijoor gi ah, Carvajal ma nga fa ak Lucas Vazquez ah, Mendy ak ka nga xam ni moo nekk David Alaba ñoom it ñu ngi ci beneen côté boo xam ne ñoom it mën naa jur musiba ci équipe yi nga xam ne moom la ñuy dajal maanaam Mendy ak Alaba bu ngeen gisee ci càmm gi digg militaire bi nag. Ah, ba tey jii mën nañ fa am ka nga xam ne mooy Casemiro ah, ak Tchouaméni nga xam ne loolu mooy arrière ci gauche bi wala boog ci digg milieu terrain bi beneen côté bi ah, Ceballos a ngi taxaw Modric taxaw beneen côté bi Camavinga mi ngi taxaw ak ka nga xam ne moo nekk Toni Kroos Valverde tamit andiwuñ ko waaye moom mi ngi taxaw dañ ko yóbbu fële nga xam ne mooy côté ndijoor gi nga xam ni boo amul sens foofee daanaka Ah, dina am solo lool moom ma nga xam ne moo fa nekk ak ka nga xam ni mooy Rodrigo ah, ñoom ñaar ci côté la nga xam ni mooy ndijoor gi nga xam ni fan yi Alioune ah, ki nga xam ni moo nekk Ancelotti moom la jël Karim Moustapha Benzema moom ma nga jommi fële ca la nga xam ne mooy pointe ba mook ki nga xam ne mooy Eden Hazard Vinicius Asensio ñoom ñaarit it na nanoo bokk la nga xam ni mooy poste mais damay jël Asensio daal di ko yóbbu ci côté bi nga xam ni mooy côté Valverde jël Rodrigo yóbbu ko mu ànd ak ka nga xam ne mooy Vinicius Junior loolooy gën a yanu maanaa ci wàllu football Eden Hazard it ba yóbbu ko ca côté ah, ndijoor ga mu nekk ñett ñoo xam ne ay doublure la ni doon Sadio ah, ka nga xam ne mooy Eden Hazard moomu tamit maanaam euh, du ma ko dugal ci accès point bi dama ko yóbbu ci côté lafoog ndijoor gi ndax foofee fa la gën a méngool ak nga xam ne daanaka tàmm ko milieu terrain excentré gauche la man wala droite ba wala digg milieu terrain bi euh, foofoo lay gën a gisee boppam ci loolu nga xam ne moo fi jotoon a taw euh, ci kanam tuuti yeneen information